mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot nañu ak seen yéen ci xibaaru digg bëccëg gi la ca gën a fës tension bi kon di gën di tara fële ca Burkina Faso loolee gannaaw ba ñu tegee loxo kon ka fa nekkoon jëwriñ ju jëkk euh, Isaac Zida donc président Kafando ca ambassade bu France foofee ca Burkina Faso askan wa ña nga daw làq ñoom ca seen biir biiri kër euh, l'armée ba taxawul di xaar kon ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa daaneeloon nguur ga situation ñu ci ànd ci leeral ya tala am ci gan Ibrahima lu Ndiaye euh, jógee ci lu yàggul foofee ca Burkina Faso di suñu naataango dina ci indi ay leerala euh, tabaski ji xar cher euh, fan yu néew kon des ci ñu daal di doxantu ci point de vente yi ndem kon jur gaa nga fa askan wi jàpp na ni lañu fay dégg ci njëkk neexagu leen ci allée du centenaire foofee moom nit ñi a nga fay doxantu diggante yére dàll wala yenn accessoires yi ku ca nekkoon ak fa sa doole yam Euh, nga yóbbul sa njaboot euh, fanweer ak juróom-ñeenteelu édition assemblée générale euh, union des clergés du Sénégal prêtre yi ña nga daje fële ca Thiès sàkku nag ci waajur yi ñu yar gone yi ci diine loole la ñu jàpp ni moom moo leen mën a musal ci kon lii di ay musiba ki kon toxi doona leerali Cheikh Anta Diop ñu jeexale yéen yi ponk yaa ngoog nistuut ñu yaatal ko dellu di rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias situation ba ca Burkina Faso la ñuy daal di kon tàmbale armée ba ñu jàpp ni kon ñoom ñooy loyaliste ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa fippi woon daaneel kon nguur ga euh, bu ñu moytuwul laale mën naa dox kon seen digg askan wa nag loole lépp jur na ak tiitaange ca ñoom euh, ba ña nga làqu kon ca seen biir yi kër euh, jorin ju jëkk ja moom daal nañ koy teggi loxo président Kafando daw ci ambassade bu France leeral ci kon tolluwaay li foofee ca Burkina Faso ak Kadiata la ëllëg Burkina Faso mu ngi sukkandikoo ci luy rusee ci ndaje bi am ci Abuja te CEDEAO amal ko liñ fay waxtaanee bokk na ci mbirum Burkina Faso ginnaaw coup d'état bu général Gilbert Diendéré di amal fi ñu toll ni force loyaliste yi dugg nañu biir Wagadugu li ñuy laaj rek mooy woy fippu yi daldi weer seeni ngànnaay am ñu ragal ne jàmbaarloo dina juddu ndax rek kii di général Diendéré fasul yéene dellu ginnaaw ci bëgg-bëgg am ngir rek ñu xaatim lépp lu ñu proposé woon si ndaje bi président Macky Sall ak Yayi Boni ñi teewaloon CEDEAO jiite woon. situation bi ci Burkina Faso euh, tax na ba kenn xamul kuy jiite réew mi. Michel Kafando daw na làqu ji ambassade France Isaac Zida di premier ministre bi woon donte bàyyi nañ ko wante kenn xamul fu mu nekk. capitale Burkina Faso bii di Ouagadougou dëkk bi dara yënguwu fa ci talaata bi syndicat yi ñoo woote grève générale école yëpp daal di tëcc ndax tiitaange jàmbaarloo diggante force loyaliste yi ak woy fippu yi muy li kàddu di général Diendéré firndel dafa daal di joxe xibaar ne song nañu seeni base muy base RSP ci altine bi am kenn ku ñàkk ci bakkanam ak keneen ki nga xamante ni am na ci ay gaañu gaañu Adja Talla kon euh, ci situation bi ca Burkina liñ leen ko diggee woon am nañu ci gan Ibrahima Khalilullah Ndiaye di suñu naataango jógee foofee kon ca Burkina yàggul dara Ibrahima maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. Euh, bi loolee ñu mën a duppee coup de amee kon euh, ca Burkina jàpp nañu ni fala la fekk nga dundanoo ko ak askan wa foofu tey jii dégg nga xibaar yu mujj yi na muy évoluer tey jii mën nañu wax ni dalul xel. waaw defe naa situation bi nekk na situation bu complexe bu difficile euh, mais dañu war a ñaan yàlla rek yàlla sotti si ndox mu sedd euh, defe naa ne ñi fay jàmbaarloo jàkkaarloo muy waa RSP régiment sécurité présidentielle bi comme waa armée bi ñi nga xam te ne wax na ne nañ bàyyi seen coup d'état bi euh, ginnaaw médiation CEDEAO bi nga xam te war na daje tey Abuja ñooñu ñëpp defe naa ne ku nekk si ñoom bëgg na jàmm am ci réew mi waaye nag euh, laata maa dugg studio bi maa ngi dégg euh, Diendéré euh, chef putschiste di naan bëgg nañ jàmm waaye bu dee bu ñu leen attaqué dinañ fayu def naa situation bi dafa explosive mais nañ ñaan yàlla rek yàlla sotti ndox mu sedd te et ñoom ñëpp ñu ñu fexe quand xam ne seen réew bi moo leen ëpp moo moo moo moo moo gën a am solo que seen nit seen personne personne yi ak personnalité yi te xam ne nguur jaru ko général bi yàgg na wax ne du accroché au pouvoir bi am na lu muy négocier ñoo ngi continuer négocier wax ak waa armée bi peut-être pour amnistie bi nga xam te ne moo indi coow li tey mm. wàllu accord bi ma Macky Sall am foofu waaye defe naa ne euh, war a dépassionné affaire yi yëg dépassé affaire yi ñu xam ne tamit Burkina moom moo leen lié ñoom ñëpp ñoo bokk Burkina bu amee ñu fa dee bu ñu xeexee bu ñu reyantee seen biir ay doomu africain ay doomu Burkina be ñooy ñoo ñoo si loru déjà population yi sonn nañu depuis bi coup bi amee ba léegi yan service yi tijjiwuñu euh, ñenn ñi sax da ngay nekk si hôtel sax ñu ne la amuñu mburu da ngay yeew mburu ñàkk fa parce que boulangerie yi liggéeyuñu essence amul te pays bi nga xam te ne euh, nekkuñ si wàllu géej. donc amuñu port lu bëri bitim réew la leen di jógee boo génnul tamit doo mën a lekk te am couvre-feu donc loolu dafa metti trop. soxlawuñu di dund sànq nga wax ko sa biir euh, kaddu euh, tey jii bokk na ci li fa indi xëy na tension bi accord bi euh, maanaam général Diendéré coup d'état boobee mu def duñ ko ca toppee dara ñu bari nag ci la ñu d'accord lu sax ñoo xamante ni jàpp nañ ni xëy na ci wàllu négociation foofu président Macky Sall dañ ko ci xëy na piégé loolu war ñu ko woon mën a nangu parce que gis nañ ni warul ko warul mën a jëfee noonu du ko ci fekk yow la ma si sa position. bon defe naa ne man à partir du moment dañu war a rafetlu dox mbokk euh, yi fa mag Sall def euh, parce que moom mooy président CEDEAO et pour la première fois quand même jël nañ initiative bu gaaw rapidement man lu nekkoon sam problème mooy lu mu fa ñëwee waa ji accueillir ko entre chef d'état mais à partir du moment bi mu ñëwee ba egg rek donc defe naa ne xar na si tànk tubéyam des na fa ñetti fan. man si mm, Macky Sall laa àndal bi may ñibbisi parce que dañ tëjoon frontières yi te puis doomu Sénégal la affaire fekk ma fa mais. problème bi euh, mooy defe naa ne Macky Sall avait la situation très difficile parce que dafa bëri ay parti euh, trouver un accord bu fa desoon une semaine tamit di déglu nit ñi tamit defe naa ne du mun a am accord bu gën accord bi mu am bi maintenant euh, ñu bëri ñoo ngi naan médiation bi dafa échoué déedéet defe naa échoué wul problème bi mooy rek defe naa ne comme ni ñuy wax ne un mauvais arrangement vaut mieux un bon procès c'est-à-dire que seetlu ni que waa RSP ñi def coup d'état bi même bu dee néew nañ tamit am nañ ay ngànnaay euh, matériel bi nga xamante ne buñ jàkkaarloo gaay yi jàmbaarloog ñoom euh, defe naa ne dina metti lool si si yëpp donc defe naa ne un bo ku ñu daan un bon arrangement vaut mieux un mauvais procès defe naa ne ñu ñu may leen peut-être amnistie bu dee sax leen jàpp mm-hmm. day day metti mais xam nga la moo gën a jafe affaire yi parce que nit ñi dañoo libre dañuy am dañuy am critique dañuy am liberté de ton mm-hmm. dañuy gis ne par exemple fii tey

am amnistie rek ñu nangul leen ko euh, pour jàmm jooju xëy na tam. déedéet euh, moi je pense que pas précipité parce que Macky Sall def na fa trois jours comme ni mu la ko waxee man fa la ma fekk te et puis gis naa ne rencontre nit ñi ba ay ay xaaju guddi génn dem jéem na rencontre acteur politique yëpp. ajjuma euh, samedi naroon na ñibbisi finalement ñu naan day fanaanaat parce que un schéma se mettait en place mais schéma bi la moo nekkoon terme yi kenn xamu ko woon. samedi si guddi biñ ne biñ nee dañ koy day toogaat ba suba yaay buni naata ngoom bi ñibbi. Mhm. moom dafa ne dañ newoon suba si ëllëg si nañ rencontre parti yëpp def benn plénière loolu tamit xam naa ne dafa gis ne loolu du sotti bu ñu demee ku nekk lu muy wax ak lu muy lii moom il fallait que mu décider mu am décision mu am lenn lu mu arrêté mu jël ay conclusion def naa def na ko te et puis il était pas seul non euh, y avait yaay buni y avait y kële Euh, président commission euh, CEDEAO muy doomu Burkina Faso y avait Hadjibou Soumaré notre compatriote bi nga xam ne moo mm-hmm. man je pense que affaire bi métti woon na trop amul woon accord bu mu mënte am ba nga xamante ne euh, du doon lii. mais est-ce accord amoon na est-ce que tey jii du force loyale ici parce que ñoom démb bi ñuy départ jëm si waaga ñi ngi ko doon wax ñii di kon général bi ñi ngi xam ne ñoom ñoo leen song est-ce que du ñoom tam ñoo ñu waroon àndal ak tuuti dal bañ a ñëw xëy na imposer ñii gaaw leen jóge feetu euh, may temps tuuti négociation yi gën a sori bon xam nga xam nga aussi nit ñi dañ gis ne RSP ñi def coup d'état bi armee la ci biir armée bi. Mm-hmm. parce que régiment sécurité présidentielle la euh, am nañ ay ngànnaay yi nga xam te ne ñeneen militaires amuñ ko am nañ ay niveau de payor yi nga xam te amuñ ko yenn avantage yi donc ñoom aussi dañoo bëgg a wane que ils sont là pour leur pays pour dëkk bi donc dëggam que opinion bi opposition bi ñu bëri rejeté nañ ko te impunité comme nee naa la ñi dañoo yàgg a système bi yàgg nañ def ay crimes yi nga xamante ne gars yi pour ñoom day yomb trop ñu bàyyi leen rek ñu defal leen amnistie ñu dem euh, d'autant plus mais ñoom it tamit il faut savoir que ñoom seen seen seen seen teraanga la ñuy sàmm xam euh, ku bëgg ku la bëgg a attaqué si si sa am si sa si sa am am si sa nekkin si sa euh, si sa mm-hmm. lépp daal da ngay da ngay fippu ñoom loolu moo leen daal parce que xam nañ ne normalement transition bi dafa waroon dem aboutir si benn élection bu élection bi jeexe am président bu bees te kooku may nañ ko l'attitude mu mun a dissoudre RSP mm-hmm. te ñoom am nañ ay bien am nañ ay avoir yi nga xamante ne yàgg nañ ko am foofu depuis boobu donc bu ñu attaqué seen teraanga rek ñoom dañuy attaqué. c'est-à-dire mesure de riposte la mais defe naa ne jëndeere pouvoir bi si boppam intéressé wu ko. xalilu CEDEAO ni nga ko waxee euh, daje pour euh, gën a waxtaanaat ci mbiru euh, Burkina Kafando kon du fa teew est-ce que yooyu yëpp tam du du du du gën a jafeel tey jii jàmm ji nga xamante ni ñu ngi koy bëgg wut pour dëkk bi parce que ñi mu soxal parti yi ñu war a topp processus électoral bi bu fa ñëpp teewul tey jii tam les choses. bon xam nga CEDEAO à niveau euh, étatique la ñuy décider chef yi ñoo fay dajee tey euh, Burkina est-ce que Burkina sera représenté ou pas je ne sais pas mais démb lire na kafan euh, kii Gilbert Diendéré naan Burkina sera représenté par par quelqu'un bi xaw ma ambassadeur bi xaw ma ku munti doon mais defe naan tey lu ëpp solo mooy CEDEAO nañ fexe ñu dooleel seen seen président mu nga xam te ne mooy Macky Sall nga xam te ne euh, taxawoon na si pour jéem am accord même bu dee accord bi mën nañ ko critiquer mun nañ si wax lu nekk mhm. CEDEAO daf ko war a d'abord dooleel aller dans ce sens maintenant euh, il restera au peuple burkinabé je pense que ak CEDEAO lu ñu mun te def tey lu ñu munti décider bu ñu doolee Macky Sall bu ñu ko euh, conforté accord am bi pour Burkina bi maturité bu ñu am accord yi euh, ak ak différentes parties ñoom rek ñoo mën a fexe accord bi am sens ba bañ a am sens l' essentiel nañ ñaan yàlla jàmm am fa te et ñoom it aussi ñu dépassé loolu ñu mën a trouver ndegam jëndere nee na ñoo ngi discuter seen biir bu ñu discuter ba am solution xayrun loolu moo gën deret di tuuru te puis ay doom Burkina rek dañ fay lor te déjà nit ñi sonn nañu Ibrahima Khalilou ma lay gërëm di la sant ñuy kon toppandoo ak yow situation bi ca Burkina eh, di jaajëfal sa teewaay kon ci xibaaru digg ba ca bi ak leeral yi nga xamante ni eh, moom nga ci eh, indi wéy ci wàllug xibaar yooyu ak xar yi bi yoon moom la ñuy waxtaanee ndem sax point de vente yi ñu ngi yokku gis nañu ni njëg yi ba tey ji kon des na cherté boobu nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di borom kër yi ñoom gisaguñu ci seen bopp terewul ñu ngiy dundee yaakaar reportage Mame Biram xar yi ni ñu bëree takkul lool newu rek ni njëg yi dafa yomb soxna sii boobu léegi muy wër waaye gisul xar goo xam ne nii ànd naag njëggam yore ndax fukk junni moom la noppi joxe ko. boobu ba léegi noo ngi fi di waxaale waaye dafa seer torop waaw seer na lool. ah man bi ma gis de fay naa ko la ma am waaye doy na waar damaa bëgg a jënd kay ba laajte fekk tabaski bi jege si rek. bu ma amee rek baax na. fukk ju nekk ñaar mooy tax nag jaaykat bi joxe xaram bi moom mi jàpp ni njëg gi lu jaadu la ndax andi xari fii ci dakaar yóbbul 60 000 laa ko wax waaw. 60 000 baax na ci boobu. baax ndaw bi. waaw waaye bu nu ñëwee ba léegi ki gisuñ benn kii daan kuy jënd. man mari la nu jënd nu indi fii. kon nag bu dee nii booba tuuti wutuñu jënd waat ab gisee nit bu ne dem mu ngi wut mu ngi coono pour am dara. bu gën a seer cent mille gën yomb cinquante mille sama waaj prix bi kam du wàññi parce que tànk tànk transport bi wàññiwul prix bi du wàññi waa ji moom jënd ba noppi jàpp na ni xar yi ni ñu takkoo war na tax rek ku nekk gis ci boppam loolee tegu rek ci njëg gëm yor bu 90 rek laa jënd donc vraiment yaakaar naa daal baax na am nga fi daal naa fi li ma bëggoon daal parce que affaire yi moom nit ku ne day seet la mën mu def ko bu fekkee quatre-vingt-dix mille nga yor bëgg a jënd xar yi deux cent mille da ngay sonn sonal nit ko la koy jaay sonal sonal nit ñi. tabaski des ay bis ngir ñu màggal ko nit ñu bëri nag jamono ji ami jafe-jafe ngir amam xar am yaakaar ne fii ak lu néew njëg yi dina wàññeeku. ala di centenaire moom xumb euh, ñu bari ña nga fa ñoo it ngir waajal lii di kon euh, tabaski ji euh, wàllu kon yëre dàll waaye it xuñu xajar ya ñu cay boole mu di accessoire yooyee façon bu ne ma nga fa ngir ku ne ak la nga yor nga am loo yóbbul say gone am ñoo xamante ni ñoom dañuy ñëw ngir jënd en gros di ko fa détaillaat mu di reportage Maymouna Ndiaye caméra mardian saa su commerçante bi dafay daaj taabalam ci allée centenaire yi li muy jaay mi ngi ko jagleel soxna yi ak tout tànk yi. lam dañ koy jaay 2000 yi 1500 jaara nopp yi 1000 francs su xale yi ay 300 500. fay nañu 5000 de place yi. góor ñi 10 000 place yu mag yi 10 000 ñun taabal yi ca wet ga ñu fekk fa borom kër bi moom it li muy jaay ay dàll la dàll yi benn bokk si ak sa moroom njëg yi nag wuute na. bu dee engrais 1200 bu jël pare ay 100 paires ay 200 paires bu ñëwee jéem a di ko jaayee ay 1200 ay 1700. dàll yi gër yi bari nañu accessoires yi itam. mu mel ni tànn si bu neex la soxna yi dañuy ñëw di jënd ci en di ko jaayaat ca seen koñ. marché bi neex na de ndax loo am am am bagage fii moo gën a yomb moom wax dëgg yàlla jaboot bu ne man nga daw si ñëw fii damay wut rek lu ma am damay jënd pour dem jaayiwaat jaayu koñ rek la damay kii noonu rek dañoo am magasin ci tali noonu rek damay dem rek teg fa noonu. waaw ah, bu dee dangay jaayaat yomb na bu dee da ngay jënd pour sa waa kër yomb na moom daal arrangé na ñu bare daal man ay daal laa jënd si woon yuñ ma commandé yu may jaay. waaw ah, damay jënd di jaay te bu may jënd sama waa dama ciy profité jënd yu en su ma ñëwee ku nekk ma yox la sa bos li si des ma jaay. moo ne de jaaykat yi dañ leen fee jële woon laata tabaski bi di ñëw wante fi mu toll nii waxtaan nañu ak seeni maire yi ba juboo mën nañoo jaay nag seenum jaay di yaakaar nuñ ci am. nawet bi ñu dem kon wax ci fa mu toll fa ca Louga jàpp nañu ne gerte gi moom mi ngi bëgg a doon guus ñebe jeeg dugub ji euh, mat na bu ñu ko méngalee ak li fi wàcc ci ndox heure bi daaw ren foofe xel ya dal na leerali Thierno Fall. ren ji fi ci diwaanu Louga donte xaw naa yéex a taw tuuti waaye teewul ci tool yi moom li ñu seetlu baykat yi moom seen xel mi ngi dal. nawet bi nag gis nañu ni mu tàmbalee wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko. ndax bu ñu jiyee lépp sax na ñebbe sax na gerte sax na mi ngi taw soo amee ndoxam mu daal jàpp na nawet bi nawet benn nawet benn lay doon lépp dana yemb waaye. jégalu wéy kon ci wàllug xibaar yi ak fanweer ak juróom-ñeenteelu édition assemblée générale euh, clergé yu euh, Sénégal fële ci Thiès kon euh, la ñu amal seenum ndaje waxtaanee nag dundu ko église bi foofee am na kàddu foo yëkk ci jibal ko jagleel ko waajur yi ngir ñu gën a yar gone yi sukkandiku ci wàllu diine ngir moytul leen ay tolof tolof Cheikh Anta Diop toll nañ ci ñaar téeméeri prêtre ak juróom fukk doon daje fii ci diwaanu Thiès waxtaane nag lu jëm nag ci wàllu jàngu bi thème bi nga xamante ni moom la ñu waxtaane ren ji de dem na ci njaboot gi naka la ñu mën a def ba delluwaat xale yi ci jaamu yàlla bañ dugg ci lu seen yoon nekkul woote nañu bépp famille mu liggéey ndax doon fi nga xam ne mooy école bi xale bi di jàngee xam yàlla te bu jàngee xam yàlla lu muy gis ci yàlla bu dul bëggeel bu dul bëgg sa morom respecté sa morom nekk ak moom ci jàmm. ñaawteef yi nga xam ne nemmeeku nañ ko jamono yi rawatina ñi ñuy faat seen bakkan loolu de abbé yi nee na jéggi na dayoo te ñi ngi ñaax parent yi ñu delluwaat ci yar xale yi xamal leen seen diine ndax seen xol mën a toj ci jaamu yàlla ba du ñu mën a def lu ñaaw. famille bu ñu nekkee famille yi nga xam ne fa la ñuy yar suñu xale yi ci yoonu jàmm kan mooy génn ci mbedd pour agresser kenn du génn mais boo nekk ci biir famille amoo fa jàmm di nga dem uti fenn. te comme xamoo yoonu jàmm mën nañ la ndax nga utee ko neneen loolu moo tax ma ne lépp lu ñuy gis ci suñu réew mi ay agression yi ñi ñu ñuy rey wala bitim réew loolu yëpp métti na suñu xol waaye bu ñu foonee ni loolu yàlla moo ko bind déet yàlla lu mu bind pour doomu aadama mooy def lu baax yàlla bu xamoon ni ñun mënuñu def lu baax du ñu ko sant. kii di njiitu union du clergé sénégalais nee na nag lépp loo xamante ni tënk nañu ko ci assemblée générale bi daañu ko tëgg ci ab téere te dinañ ko jébbal képp koo xamante ni kilifa nga ci biir réew mi. ñaar fukki fan ak benn ci weeru sàttumbar gi la ñu jagleel àdduna bi yëpp jàmm loola waral Ziguinchor Kolda jàpp Sédhiou jigéen ñi nag taxaw fa ngir waxtaanee jàmm jooje euh, ca Pakao la ñu amalam ndaje def benn conférence ki ko doon animé euh, taskatu xibaar bi di Bakary Domingo mane mu waxtaanee nag euh, rôle kon nag journaliste yi ni ñu war a taxawee ci wàllu jàmm rawatina ci zone de conflit yi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Tala Casamance lañ nekk dafa am conflit boo xam ne daal euh, dépassé na fan fanweeri at mais fu ñu nekk ni tembe euh, jàmm am na mais ba tey mu loolu la ñuy wax situation de ni permis euh, ni guerre c'est-à-dire que c'est vrai akam yi am na jàmm am na mais jàmm boobu tant que vraiment defaruñu ko ba mu taxaw ah mun na am mu lawaat kenn loolu kenn kenn kenn kenn ñaanu ko c'est pourquoi euh, temps bu ñu nekkee nii journaliste dafa war a def attention si li mu bind si li mu wax si li mu wone voilà donc euh, euh, si li mu wax parce que dañu ne wax day yàq wax day defar voilà donc euh, wax de yàq wax de defar donc su fekkee yow da nga wax euh, génne benn wax boo xam ne daal euh, loolu du du du arrangé jàmm yow da nga war a seetal sa bopp donc loolu laa wax si si sama conférence yi que journaliste dafa war a wax vraiment dafa war a nekk nitu jàmm wax ma la ne nekk jël micro wala di woote jàmm ak loolu du waxam du liggéeyam liggéeyam moon na maanaam dee def reportage yoo xam ne da reportage yoo xam ne da day day tax nit ñi comprendre par exemple la crise casamançaise Kër ca Fuuta taxawal nañu ko eh, ki koy inauguré imam ratib bu dëkk bu selli ba ca ndaje ma nag ñu dellusi ci diggante bu rafet ak mbokkoo gi ci murit ak tijaan nali ñaaw jàkk murit kër Serigne Touba mu di bi njëkk bi ñuy amal fii ci diwaanu Fuuta taalibe murit yi nga xam ni ñoo gën a bëri ci ñu yore wàllum commerce fii ci gox bi yàgg nañoo gént bés bi xanaa kon ngir jox bés bi dayo moo tax ba kilifa yi ci Touba kenn demul ñu des nde imaamu grande mosquée wu dëkk bu sell ba moo ñëw jiite julli bu njëkk ci jàkkab murit bi fii ci Wurusu gi di événement bi nga xamante ni te waayu askan wi day wone rek ni dëkkandoo gi baax gi dox diggante taalibe murit yi ak mbokk tijaan yu yu Fuuta. sant yàlla rek gannaaw yàlla dogal na ñu tàmbali ko suñuy gone àggale ko te àggale ko ci anam rafet xanaa bi ci xalaat bi ñu ngi ko ñu woon ci Cheikh Mouhamadou Mourtala bi ñu ko wutee itam yàlla dogal na ñuy toll fii fekkiwu ko Cheikh Mouhamadou fekk yàlla na ko yàgg jàppale nañu ci te itam ñu ngi ci moom daal ndax nit ki bu jiitoo di eh, def loo xamante ni bi moom la war a def ña ca topp itam li ñu war a def mooy def li ñu war a def gis nga diggam ak jumaay Tuuba gis nga diggam ak jumaay Masar kon murit bu nekk sa xel war naa dem ci loolu daara ak juma bennoo feeñ na fi comme ni ko sëñ Sidi Muxtaar bëgg lislaam tam feeñ na fi ndax dëkk yi ñu wër yëpp ñëw nañ dëkk bi yëpp ñëw nañ mbooloom lislaam yëpp ñëw nañ te tey bennoo ne privilège na nag ñeel dëkku Bousso gi fi nga xamante ni fa la ñu njëkk sampé jàkk murid ci xalaatu meeru dëkk bi euh, ubbiti juma sëñ Tuuba fii ci Bousso gi mooy premier juma murid fii ci Fuuta yàlla dimbale ñu nag ak taxawaayu kilifa yi nekk fii yëpp kilifa murid yi nekk fii fi nekk fii ci ci wurusoo gi ak taxawaayu ak ndimbalu ak euh, ñaanu euh, ak leeru sëñ Touba. tax na tey duñu am fii jumaa Serigne Touba fii ci Ourossogui mu nekk lu rëy loo xamante ne vraiment maa ngi koy rafetlu di ko rafetlu ci turu population Ourossogui yëpp di rafetlu di ko rafetlu ci turu région de Matam bi yëpp. fii léegi ñuy dégg autorité yi ci yàqu-yàqu yi am ci campagne bi ñeel waa Garli ñi bokk ci CNCAS ak waa SAED feggoog waa DRDR ñoom sol nañu seen dàll ngir ñëw constater dégâts yi baykat yu Garli kon dëkkeeb njàqare Ali Bandel ña gërëm ko yegsi ci yéenekaay yi la ñu xëyee ci talaata ak tey ji ak Alaaji Asan Gey ci mbedd mi démb ndakaaru du ñàkk ñu laaj ndax Dakar am na système assainissement populaire ne démb safara dëgg lañ fi dund ay yoon yu dagg embouteillage yu gudd te yàgg woto yu bari yu paan ci biir ndox mi ay kër yu moo même ndox nangu la ca gën a tiis ca yéeme nag mu ngi xewee ci gis-gisu la populaire ca Grand Yoff fii ci ndakaaru liirab ñeenti weer bu ndox taw yàgg miir bu màbb faat ca quartier Arafat ndox mi démb meloon na nag noo xam ne ba ci Colobane ca boori maison du parti socialiste yéene kaay bi ne sapeur pompier ak ne ñàkk ndox moomee ngir ak tan am ci site populaire ne démb dund nañ fa coono dëgg ak taw yu mitti bawu fa benn gox ngent kër maam El Hadji Aiglon Escale Tuxali ba Ersan las ci xëtam bu njëkk nataal ñaari soxna ci biir ndox yi démb daanaka ndox ma ba seeni ndigg yéenekaay bi ñëw ci yàqu-yàqu yi ak embouteillage yu métti ca yàgg yi naka noonu liir bi faatu ca Grand Yoff temps bi nag démb neexul woon ci askan wi kon ndax ndox yu ànd ak yàqu-yàqu waaye temps boobee libération ne neexul fan yi de ci doomi Sénégal yi di ay passeur maanaam ñiy jàllale ay aji tukki libération ne gën caa gàtt fukki ci ñoom teg nañ leen loxo ujaaj yi nu fi bàyyi nag moom ndakaaru ñoom du ay passeur la ñu dénk seen bopp de waaye agence ak commission bi ci boppam ñu daal di leen bàyyi ndakaaru seen avocat maître Khassim Touré ci le témoin di sàkku ubbiteg information judiciaire ngir ñu xam ku ne ak lu cay sa wàll responsabilité yi leer avocat bi yamu ca dina defa plainte état bu Sénégal ak commission bi ñu dénk aj gi ndax mu ne li xew njombe dëgg la gu kenn mënta natt njeexiteem ci xol ak xeli jullit gi ak cooxe gi ci wàllu organisation ngir tukki mi bu ren bi na gën cee yéeme ak lu ëpp téeméeri ujaaj yu nu bàyyi ndakaaru ndax commission bu wees lu ñu ko joxoon népp lim jafe-jafe am ñu ne mes ba a taxawu ñooñee nga xam ne seen xel mu dem xajoon na ci ba ci am sax ñu doon artooy xaru sociologue bi di jibi jaxate ci Sud Quotidien ba tey gis ne fi lee kilifa yi nu mbiram aj ak mbiri politique problème du fi gëj président Macky Sall moom la mu bëgg ci ñoñam mooy ñu daal di ràññeetle wax ak jëf bu njëkk bu observateur ñu jàng ci ne président na ci taabal ji sàkku ci ñoom bàyyi seen salar ni kuy ci presse bi taawi làmmiñ ñi rek di wax ca dem liggéey liggéey yokk parti bi président ne dootul nangu kenn ci ñoom di taar yéenekaay bu groupe Futurs média ne xiiroo gi diggante directeur général port Cheikh Kanté ak Moustapha Cissé Lô du lu ko neex premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne ak xibaar yi ne su paree ci aj gi ren day sàkku ci président mu yeewi ko yaa xam mbay secrétaire d'État la communication ci observateur weddi xibaar yu ba mu set wi ci ne dara amu ca pexey noonu rek premier ministre tey la gën a des ci liggéey bi ci weti président Sall tey a ne mu ne ngir jëmmal mbébéti plan Sénégal émergent ndey mbill gi nag ci boppam ci enquête yéenekaay waxal boppam weddi na xibaar démission bi yëf yi mu ne manipulation rek la ca màkk gamu ne la yéenekaay bi jokkoo ak moom premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne muy sàkku ci jegeñaaleem ak i ñoñam ñu bañ a jox benn yoon ak solo xibaar yooyee laam-laamee ak demam premier ministre demul leer na kii dem nag te mooy ne Alioune Sall la day bàyyi ko ci bopp kuréel ak élus locaux yu Sénégal ndax nag boole gi ci ndomba ñu ne mairie Guédiawaye njiital AMS njiital élus locaux yi demoon ba jekk di ci gis-gis looloo waral ñu ne bi ñuy lancé PUDC protocole président Sall fexe wutaloon ko place mu bañoon jege mag ja ñoom ñaar nay président mag ak rakk cib république cib démocratie du woon lu jekk waraloon pexe yi pexe Aliou Sall ci boppam nag mooy daal di bàyyi tekki ndomba tànk gi ci boppu union élu la koy Sénégal yéene bi ne xamuñu kañ lay doon bàyyi googee waaye yàggatul président Macky Sall ak tànki jàmm yi muy dox ca mbedd ya ca Burkina Faso askan wa dañoo génn wane seen ñàkk ànd ci xalaat yi CEDEAO jibal ngir génn ci crise ba le quotidien ne bi ak askan wi yëpp a taxaw ngir gàntal pexey RSP yi di takk der yi gàddu nguur gi foofee le quotidien gis ne projet jàmmoo bu président Sall ngir Burkina Faso ñu war ko waxtaane tey ci Abuja projet la bu ànd ak i gàllankoor le soleil ne président bu France nag François Hollande jàppale gu mat sëkk la jàppale e CEDEAO nguur geeg ngànnaay yi Walfadjri xëy jàpp ne Macky jaxasoo dëgg la bàyyi Wagadugu ku moyul nag l'armée ba ñu ne ak fipp ya soxante seen biir kafaandoo moom mel ni ku dara xeeñ daw na làqu ji ca ambassade bu France ca Wagadugu Hissène Habré mi làqu si woon Sénégal diire ngi la mujj ko jébbal yoon ab atte mu ngi wéy grand place xëy expert yi nga xamante ni ñooy càmbar yori nag nguuram la yéem rek yéenekaay bi mooy expertise yoo xamante ni àndul ak contre expertise président Macky Sall ci barke tabaski gi mu libéré Karim Wade Thione Seck ndax dina tabaski jeeg njabootam laaj boobu la enquête xëy fësal tey jii mel ni nag ku naan tontu bi tey lay doon ak chambre d'accusation bu Ndakaaru gërëm ko Alaaji Asan Gey jaajëfal leen yéen ñu àndaloon ci xibaaru euh, digg bëccëg rédaction bi incha allah dana dellu si 19 euh, ak 20 ci yeneen i xibaar lay doon.